ko dem ma dem ko demul ma dem loolu laa bëgg de. at at mi ma dama damay wut juróom-ñeent fukki murid saade ak juróom-ñeent yu yu ko yéene te mënuñu ko ma ma joxeel leen maa ngi ñoom ñu ngi nii. wajalilaayi misras mi abijaayi xayri ma nabaat. ko bokk taalibe yi yëpp dégg yi ñi bokk yi bokk ci liggéey bi ci bokkul na ko ñëpp dégg waaw na ko ñëpp dégg. waaw noonu dong la demee. ñaari junni ak ñeent téeméer du mooy at dagal ma ko. kon noonu rek la demee waaw eh, xanaa ñaan nag ci baaxu Sëñ Tuubaa seen borom gën gën leen a gën a tawfeex Sëñ Tuubaa rek. sëñ bi daggal ma ñetti weer Tuubaa ci ah, lépp lépp lépp lépp tawfeex Sëñ Tuubaa la waaye nag mu. sëñ bi dagal ma juróom benn weer Tuubaa ci kanam. ñu ñu ñu gën a yokk waaw ñu gën a yokk te eh, eh, tawfeex Sëñ Tuubaa Sëñ ci yéen. dal ma reçu bi 1000 francs boo noppee nga daggal ma carte membre mi lay tax a bokk ci ñi taxaw liggéey bi. ci application Wave bi demal ci menu facture nga cliquer ci logo Touba ca kanam dugal sa addiya. ak Orange Money defal dièse 144 dièse 5 étoile 41 08 18 nga def dièse. sëñ Touba gàtt na leen gërëm moom waaw ngeen mën a dem na ngeen ko bëgg sëñ Touba gàtt na leen gërëm moom.